Amadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Media ni ñu ko junjee ci bopp bi rek li ñu duggee ak ci yaatal gi dooree xibaaru digg bëccëg geek eh, li nga xamante ne ji kon direction surveillance contrôle ak l' occupation sol di DSCOS ji xëy nañu ko amal fële ca. diwaanu mameel benn pàkk bu fa nekk tey ñu bëgg koo seetal ña fa nekkoon ñu bëgg leen faa jële tey bañ ku fa tabax loolee tax kon ñu àndoon ki i ngir wàcc fa tey jili ñu déglu yeneen i leeral yu tukkee ci moomi le yu aju ci moomi le mbir tukkee ci colonel Pape Sabouri Ndiaye mooy directeur bu Descos ñu déglu koog Dieynaba Seydou Ba faar bi dañ fi ñëw tey pour dàkkal li nga xamante ne moo lëmbi dëkk bi fan yi yëpp faar bi rek la ñuy waxtaane am na autorité fi ñëw xool si li nga xamante ne moom lañ fi doon def ci agression ñoo xamante ne ñoo yeewu jël seeni caterpillar sangu faar bi di ko gas ci ay wetam pour am fu ñu tabax ay kër te faar bi nekk loo xamante ne dafa bokk ci patrimoine u état du Sénégal ñu classé ko kenn amul droit laal ko kenn amul droit gaañ ko ñi nga gis fi dañu nekk fii nag ñoom dañuy spéculer rek li ko gën a garaawal aussi mooy bu ñu fi toogee as diir dañuy daal di dem commencé ut ay kayit. di régulariser. bi am as kayit commencé tabax. mais bu ñu leen fi jëlee bi mu set dina permettre ministère de l'urbanisme mu def fi un aménagement paysager pour la collectivité qui est ici la collectivité bu ñu fi dëkk. et keneen ku fi romb aussi boo xoolee. dina rafetee ba sa xol dina neex. d'accord donc ça veut dire que ñi am kayit euh, yëpp euh, te ñu am peut-être euh, mun naa wax ay kayit fii ci wetu faar bi ñooñu dañuy annuler seen kayit yi. je sais que dégg nga barki démb mhm. déclaration directeur de domaine. Mhm. jot na instruction yu leer mhm. yoo xamante ne. Les plus fi nekk ay kayit annulé aménagé comme un lieu public nga ne ñëpp ci yooyu la jamono député ba woon de Cheikh Oumar si moom li muy sàkku daal moo di ñu taxawal agence nationale boo xam ne dañu koy dénk lépp lu aju ci mbirum suuf fii ci Sénégal mu koy lijjanti ci anam ya gëne ci gis-gisam direction générale des impôts et domaines doon na mbir moo xamante ne ji ngi di ko dénk mbiri suuf ngir mu di ko lijjanti day bari ci moom donc ñu jëlee ko fi jëlee loolee ci loxom jot na taxawal beneen agence bu koy saytu ñu teewlu ko moom Cheikh Oumar euh, si euh, moo ne woon tey ji ganu RFM matin tey bu ñu gisee coow li dafa bëri ci wàllum suuf ci Sénégal euh, particulièrement nag xam nañ ne direction générale des impôts et domaines moo ko moo koy gérer te ni ngi koy gérer tamit ñu bëri bëri rafetlu ko parce que bu ñu xoolee ne tey lu ñuy saax saaxee suuf si foo tourné ñu ngi ciy tudd euh, direction générale des impôts et domaines

ak yeneen kuréelu état bi pour proposer sénégalais yi ay assiette ay assiette foncière yoo xam ne ku nekk war nga ci mën a gis sa bopp selon yow ni nga sa sa am-am mais surtout tamit jëndum suuf bi jaar ci banque yi euh, ak yenn nga xam ne mooy leeralal xaalis bi fan la jóge parce que boo leen gisee tey blanchiment d'argent bi bëri ci dëkk bi ci bâtiment yi lay jaar te pour mu am traçabilité il faut mu jaar ci banque yi ñu xam kan mooy kan ak kan moo jënd fan loolu mooy wàññi njëkku suuf si parce que loolu moo indi suuf tey euh, cher foog naa ne bu ñu defee noonu dina dina wàññi coow li ci ci ci Sénégal parce que tey bu ñu géré wul affaire foncier bi rek dina fi mun a nekk mujjee nekk benn bomb si suñu kaw. député ba woon di Cheikh Omar Sy fàttali ne lu aju ci gis-gis tey jii ci njeextal xabaar yi ci coowal suuf li am ci réew mi lañu ci eh, waxtaanee leneen ci wàllu xabaar di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des Mourides dina jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi. Euh, tey ji bu 4 heures ci ngoon jotee ndaje mag taskatu xabaar yi di amee ci résidence Xaadim Rasul di kër mag moom nga ca Touba xibaar yi ñu am jëm ci li waral janook taskatu xibaar yooyee Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khader war wara def moo di Serigne Mountakha Mbacke Bassirou xalifa général des Mourides moo ko jox ndigal ngir mu yëkkati kàddu jagleel ko chef de village ak chef de quartier ya nekk ca Touba kon mooy solo sa jano beeg taskatu xabaar yi des na ca ànd ak yéen ngir lu tukkee ci déclaration boobee nga xam ne porte parole xalifa général des Mourides di Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khader war na ko def euh, ginnaaw ndigal lool jot na ko ci xalif général di Mourides euh, jëm ci mu yëkkati kàddu jagleel ko chef de quartier yeeg chef de village ya nekk kon ca diwaanu Touba xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média benn waxtu di nar fegg na juróom-ñaari minutes. RFM rajo askan wi. limub ñiy faatu ci coronavirus yokk na am na yeneen ñaari doomi aadama yoo xamante ne ji kon faatu nañu léegi lim bi ci ni ñu ko mën a jàppee mi ngi ci ñeent fukk juróom fukki doomi aadama ak ñeent yoo xamante ne ji ñàkk nañu seen bakkan fii ci Sénégal eh, te jaaree kon ci coronavirus des kon ci coronavirus googee ak euh, ponk bi nga xamante ne ji kon bàyyeekoon na tey ji ci suba gi ca ministère de la santé jëm ci ñi amee wopp ji ñi ñu faj ba ñu génn seetlu daal moo di téeméeri doomi aadama ak lu teg kon amee nañu corona ci 24 heures yi ñu génn leerali docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci junni ak ñaar téeméer ak juróomi test yi nga xamante ne def nañu ko téeméer ak ñaar fukk ak ñaar dellu si nañu ànd ak doomu jàngor ji ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent moom la ñuy wax contact maanaam mooy yi nga xamante ne suñu service yi bérébu liggéeykaay yi ñu ngi leen di topp te di leen di saytu fukk ak juróom nag am nañ ko tey ci cas ñu ngi tëdd ci diwaan yi. mbaaw am na ñeent géejawaay am na ñaar pikin am na benn maris am na benn yëmbal am na benn Grand Yoff am na benn jëppal am na benn yaraax am na benn yooyu ma lim nag ñoom ñëpp ñu ngi fii ci diwaanu ndakaaru fële sa ci Ziguinchor am ñu benn ca Touba am nañu ñaar juróom-ñaar fukk ak juróom-benn am nañ ko tey ci ñi nga xamante ne bi ñu leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag Fuk ak juróom-ñetti cas grave mooy ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu sawetaas yi maanaam mooy service réanimation ñeneen malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital seen yaram mi ngi ànd ak tan 2 mars ba léegi ñu fàttali ne bi euh, at mi amee ñaari fan ci mois de mars ba léegi nga xam ne mbas mi ci la dugg fii ci Sénégal ci suñu dëkk ñu ngi toll si ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukki cas yoo xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom wër nañu gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji juróom fukk ak ñaar làkku nañu mooy génn nañu àddina ñi nga xamante tey ñoo toog ñi leen di faj ñu ngi tollu ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar di ñaax askan wi ngir ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mii ñuy wax Covid 19 dina génn si suñu dëkk Sénégal. ni ma leen ko junjee sànq euh, mu di yeneen ñaari doomi yaadama yu ñàkk seen bakkan ci Sénégal ndax Covid 19 bi euh, coronavirus moo leen faat kenn ki genn góor la gu toll ci juróom-ñaar fukki at ka desit geneen góor la gu toll ci juróom-ñett fukki ak juróom-benn maanaam 86 ans ni ñu ko waxee ñeen juróom fukki doomi aadama ak ñeent di 54. Euh, ci doomu yaadama ñoo ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi bi mu duggee ci réew mi ak léegi docteur Marie Xemes ngoom Ndiaye junj ko sànq ci jukki bi mu di ñi nga xamante ne ji kon ñoo amee corona ñu seet leen gis ci ñoom ja jàngoro jooje gis nañ ne lim bi euh, téeméer ak lu teg la tey bokk doon doon ma ci tubaab taux de positivité bi ma nga ca dix virgule deux pour cent. loole lu muy tekki ak it ñu ko mën a gam-gamle gam ndax bokk na ci gën a yéeg ci bi jàngoro ji duggee ci riw mi ak léegi boobu de taux de positivité Awa mbay di ñu ceen yi leeral tey ci xayma bi nga xamante ne moom lañu ñu def ci bis bi ministère de la santé ne taux de positivité bi tey mi ngi ci dix virgule deux pour cent bokk na nag ci yi nga xamante ne ñoo gën a kawe ba jàngoro ji commencé ba léegi bu dee sax ci fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi ñu romb eggoon na douze pour cent maanaam téeméeri test yoo jël fukki ak ñaar am nañu coronavirus kon taux de positivité bi ñu ngi koy kankine ci limu test yi nga xamante ne moom la ministère de la santé di am par bis tey jii nag mu tollu ci junni ak ñaar téeméer ak juróom te ñi ci am coronavirus toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. Sénégal kon diggante ñaari fan eh, ci weeru mars di bis bi mu njëkkee am malade coronavirus ba ñaari fan ci weeru juin di ñetti weer ministre de la santé ba mu calculer taux de positivité bi nee na virgule pour cent la maanaam téeméeri test yoo jël juróom-ñaari ak lu tegus lëf am nañu jàngoroy coronavirus ci seen xayma ñetti weer yi taux boobu nag bu ñu ko boolee mi ngi tukkee ci ñeenti cas ak ñaar fukk ak benn bi Sénégal am ci ñetti weer yi mu tukkee ci test yi nga xamante ne moom la def gannaaw nag ba ñu woyofalee yenn jëm ci dundinu jàngore Covid 19 bi ci juróomi fan ci weeru juin bi ñu bis bu njëkk taux de positivité bi egg 10 pour cent Wanibinak, bi nag ndax day tekki am déet nekkinu askan wi ci jamono ji ñu dañoo ci lu bari jëm ci Tektal Kër Docteur bis yi di ñëw daañu ci xam dara jëm ci courbe bi nga xamante ne ministre de la santé moo ñu waxoon ay bés bii ñu génn ne tolluwaayu feebar bi ci Sénégal mi ngi wàcc. Awa Mbaye ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi déglu xibaaru digg bëccëg yi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën seen soxla. yëngu-yëngu yi nga xam ne coronavirus bi da caa andi cooxe nees di def ba taxawu leen loolee sabab ndaje mi nga xamante ne ji ministre bi ñu dénk wàllu njënd ak njaay di commerce amal na ko tey jii di gëm ak waa UNACOIS waa yeesal ngir seet nes di mën a def daal ba jox leen ni koom yooyu dañ leen koy dimbali mu doon boor bopp danañ ci mën a sukkandiku ba lijjanti si yi ni jafe-jafe ci jamonoy corona ji. bari nag ay xalaat yooyu jibal nañu ko fa ñu teewlu lenn ci la tukkee ca ndaje ma Euh, ci euh, kaddu yi Alla Dieng mooy directeur exécutif bu euh, UNACOIS yeesal ñu déglu ko Barthélemy Ngom bi ñu toogee ministre bi échangé nañ ba mu xam ne jàppale nguur gi mënul ñàkk maintenant nag difficulté bi ñu am mooy économie informelle dafa am particularité par rapport ak entreprise formelle yi nga xam ne am nañ doole léegi nag ñun bi ñu ko waxee suñu yàqare rawatina luy woyefal ñu accès ci financement bàyyi na ci xel moom ak service am ba jël na ci note parce que déglu nañ ñun ñëpp te bi ñu waxee aussi moo introduire waaye aussi tont nañu wane ne état bi nekk na ci disposition jàppale économie d'une manière générale waaye surtout ñu nekk économie informelle ba ñu dem bam yàgg fàtte mbas mi ba bu dootu gàllankoor suñu benn activité commerciale ak industrielle. lu mu gën a gaaw gën ci parce que nit ñi sonn nañ les gens souffrent te itam euh, xalaat nañ daal fin juin donc au plus tard début juillet opération war da démarrer ba nga xam ne ku répondre ci critères yi rek te critères dañu fexe ba mu gën a oyof ku répondre ci critère mën a mën a am accès financement te loolu su xase ba am rek da nga mën a reprendre sa activité ba mën a dellu ci li xewoon ak ni nga ko daan defee balaa mbas mi di ñëw seetlu nañ ñëfale ci diwaanu Sigicoor nawet baa ngi fay nuyoo si ndax biik ndox wàcc na fa euh, ci yenn diwaan yi fu ca mel ni Kédougou ak Tambacounda diwaanu ma gis nañu ne ndox wàcc na fa euh, ci jamono jooj euh, baykat ya ca boobi li diwaan ñoo ngi waajal nawetub ren bi waaye aw jiwu la ñu gisagul ak i gët Lamine Ba. nemmeeku nañ biig taw yi njëkk yi nga xam ne daanu nañu ci région bu Ziguinchor fi nga xam ne nag moo di Sénian ca département bu Bignona moo gën a bëri le taw yi nga xam ne wàcc nañ fi Ibrahima Diallo moom moo jiite station météo principale ci aéroport bu Ziguinchor. démb jot nañu ay taw diiwaan yu bëri fii ci Ziguinchor li gën a takku ñu ngi ko jot ci diiwaanu Sénian ndax ñu am fa daanaka fanweeri milimètre taw yu njëkk yooyu nag ñoo ngi yegg ci jamono ji nga xam na ci tool yi jamono ji dañuy ak râteau ñu ratissé euh, bon ay bois ndaw yi nga xam ne mooy ci biir euh, terrain bi. waaye am na jafe-jafe bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko te boo moytul mun a tardel bu baax a baax lii nga xam ne moo di nawet bi mooy jiw yi yu ci bëri jamono ji béykat yi jotuñ ci loolu la Yunus boo jaa xamal béykat la moo ngi fekk baax ca Suwel. mboq bi amul lu gën a bëri. Euh, mboq bi la ñu ñëwagul ba léegi daf may tardé cycle bi amul semence. Fodé Goudiaby moom it di béykat dëkk ci Jatog dëgg li ni mel. pour le moment gisuñu jiw te ñun def nañu suñu kii bi yëpp suñu commande de semence en en en kii en riz en arachide et en haricot. xibaar rek la ñuy dégg comme quoi jiw bi egsi na bi ñoo na. ba tax na boo moytul tardé boobee nga xam ne nag jiw yi def nañ ko dana am jeexital na liggéey war a demee ci biir nawet bi ba sukkandikoo ci ay kàddu Fodé Goudiaby. dinañ tardé deux semaines de cela on est en bu développement rural bu Ziguinchor di Casimir Adrien Sambou di àndi ay leeral ci li tardel jiw yi waaye mu boole ci di dalal xel yi. Euh, gerte bi mu ngi dugg mu ngi ñëw mboq di ñëw ñëwul ñëwul mais ñoo koy xaar xaar donc euh, si opérateur yi la ah. yaakaar naa ni fi balaa le 15 juin dinañ am jiw yi yëpp en place. ay jafe-jafe yi ni mel nemmeeku nañ ko daaw ci li nga xam nag moo di nawet bi ba tax na béykat yi yeewoo ci Ziguinchor bëgg ministre ay matukaay yi nga xam dafay am ay njeexital yiy yàq liggéeyi yi niñ ko tëralee ci biir nawet bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. nawet boobee ndax doon di gàllankoor ci wàllu njàng meeg njàngale mi ndax nawet baa ngi nuyoo si te ñi ngi fas yéene ubbi l'école bi ci fan yii di ñëw bu fekkee yemb na loolee waral Union démocratique des enseignants du UDEN di xamle ne école bi ñu bëgg a tijji ci weeru octobre mënut a nekk mu mel ne ñoom seen gis-gis wuute nag lool yéene ministère bi ñu dénk éducation nationale ndax ñoom seen bëgg-bëgg mooy seet pexe mu ñu mën a ubbee l'école bi ba ndongo yi dem jàngi Anna Rochal Lopez Faye depuis bi nguur gi dellu si waat ci euh, dogal bi mu njëkkoon jël ubbi waat école yi ñaari fan weeru juin gi ñu nekk waa UDEN Union démocratique des enseignants ñu ngi gëstu ci situation wu école bi fii ci Sénégal lu ñu seetlu moo di am na lu bëri lu tax mënaguñu ubbi école yi fii lekk weeru octobre gi ñu dëgmal Abdourahmane Gueye mooy secrétaire général u UDEN. te suñu xoolee tey fi nga xam ne mooy partie sud du Sénégal depuis démb ba léegi day taw te photo yi nga xam mooy dèjà ñaari ay bis rek la taw ñu gis ne école yi ña nga fees delloog ndox fii ñu toll nii bu ñu bëggee ubbi école yi dina xaw a doy waar. ci jafe-jafe taw moomu ministère de l' éducation nationale moom dafa jàpp ne loolu warul te mën a nekk benn barrière ngir ubbiwaat école yi bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Moustapha Diagne nekk directeur de la formation et de la communication ci biir ministère ba. école en principe mi ngi woon tëj le 31 juillet. te it du guléet ñuy am situation yu jafe yu demee nii parce que grève yi ñu daan dund ci système bi daan tax ba ñu randal euh, suñu datu tëju école ak suñu datu examen. inspection d'académie ak ay inspection de l'éducation à la formation. yàgg nañoo organiser ay examen ci noor ak ci nawet. ministère de l'éducation kenn li mu bëgg moo di ni mu gën a gaawee ñu waat école. comité interministériel bi. incha allah jàpp nañ ne balaa yàgg. daañu proposer beneen date président de la république bu ko defee moom muy dogal ngi d'accordé mu dogal ko. waaye UDEN nag gisewu ko noonu ndax am na yeneen proposition yoo xamante ne jot na ko def moo xam pour classe examen yi ak pour yeneen classe yi. ak RFM kumpa njiital I2AF gawoon di Lamine Diack ab layoom ginnaaw ba ñu ko tàmbalee keroog altine aj ko tey jii ci àllarba ji la ñu ca euh, ca lañ ca nekkoon. lu aju ci moomile mbir nag euh, dañoo suspendre audience ba ñuy defee ci fi nga xamante ne ji moo di chambre euh, bu tribunal correctionnel bu Paris dañ ko aj ba quinze heures ci heure Paris la France euh, tey ji ci suba nag ñu jàpp ne ki nekkoon conseiller juridique di maître Habib Cissé moo taxawoon ca kanamu àttekat ba Paris leerali Cheikh Sidou si rapport bu présidente Rosemary Inou Dianga mën nañ ci japp ay poñ yu melni financement campagne électorale au Sénégal en 2009 d'abord sur élection municipale du Dakar en 2012 sur élection présidentielle pour élection municipale la Lamine Diak dafa ñaan la Russie 450 000 euros la pour ñu jox ko ñu mu ko campagne bi limu bëggon nak moy Karim Wade maire de Dakar xaalis bi nak ci campagne bi lañ ko présidentielle 2012 Lamine Diak dibal bu mu ñaan Russie 1,5 million d'euros pour que Abdoulaye Wade gagne a gagné présidentielle bi ce rapport bi Lamine Diack waxul modalité de financement yi yaakaar nañu ne tey ci ngoon bu ñëwee ci baar dina indi ay explication ci point important Ce ci rapport bi que Massata Diak de dafa contester lu papam wax ci financement campagne électorale pourtant Nick Davis, ex-secrétaire général de la fédération internationale d'athlétisme dit dafa ne Massata Jack daf ko wax ni Russie jàppale nañu papam si financement campagne yi fu ñuy Jack Diack aussi ay clarification moy contrat de sponsoring ak euh, banque russe VTB ndax si rapport bi Lamine diak dafa ñaan collaborateur am yi ñu la suspension contrat Russie pour ñu bañ a ñàkk contrat de sponsoring ak banque boobu lan mooy contrepartie bi yaakaar nañu ne dina indi aussi ay clarification si loolu abib Cissé moom moo nekkoon ci baar bi moom nag dafa seetal boppam ci affaire bi ndax nee na amul benn pouvoir pour la suspension yi nee na fédération bi du république bananière séance bi nag dañ ko suspendre 15 heures la war a ku doon jokk ak yéen fii ci Paris Sheikh Sidou Sylla RFM Tulinabo Mushingi di ambassadeuru États-Unis fii ci Sénégal tey ji xëy na dalal eh, jot na kon leetar bu bàyyeeko ci ñu fare ci société civile gi lañu bind ca leetar ba moo di di ñaawlu boom gi ñu boom ki di George Floyd fële ci Amérique anam ya ñu ko boomee ci woowu lay wàll mouchi ngi ambassadeur bo États-Unis fii ci France di xamle ne daal loolee moom ñaawlu na it faat gi nga xam ne moom la ñu ko faat mu di benn noir américain bu toll ci ñeent fukkat ak juróom-benn ñu déglu ko moom ambassadeur u États-Unis ci micro Umu Kalsum li la mort de monsieur Floyd. génn aduna monsieur Floyd wone na ni am na lu bëri lu yàqu ci ñun li nga xamante ni moom la gëm moo tax sa ginnaaw sa dënn yi jóg nañu ñi ñi waxante nañu waaye lu ko jar la ngir ñu mën a seetu lépp luy xeet wàllum euh, égalité waaye itam wàllum justice loolu nag dañuy fàttali fàttali àdduna bi yëpp responsabilité bi ñu am aar ak yelef ñi ñi waaye tamit daa di xool seetu bu baax liggéeyu force de l'ordre yi waaye tamit autorité États-Unis d'Amérique saa su ne dina def lu mu mën ngir ñu mën a respecter li nga xamante ni mooy képp ci àdduna bi Ak fo judo a chi èt ben a babok nò tolò de tamèt amb ga droit d'ndu liberè de wall lo pòdi conte bar Lo racisme.

RFM bitim réew. Mbisaan Ngom Barthélemy maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi fay Mamadou Mohamed Ndiaye. Maroc la ñu koy dooree foofee fa ñu jëm moo di seet nu ñu woye fale missir yi ñu leen tegoon jëm ci wàllu confinement bi. waaw euh, plan boobu sax mën na am ñu tàmbali ko ni ki ëllëg ci àll xemes gi yemoo fukki fan ak benn ci weeru euh, juin waaye nag euh, du dëkk ba yépp la concerné xa leeral yeeg xadim Mbay

état d'urgence sanitaire bi nga xamné ne dañ koy yokk ba le 10 juillet mo fay am way nak bu fekke da nga nek ci bët saalumu rew mi mo xam Daxla Laayun ak dekk yi ko wër fofé amna ci ay yombal yu am solo ndax te kat nit ñi bu ñuy génn soxlaatul ñuy joxe ay kayit di wane ni ñoom am nañu autorisation wala bokk bu leen neexee sax ñu dem ci jardin public yi tayit li nga xam ni moo di salon de coiffure yi ubbi nañ ko dëkk yu mag yi nag boo gisee Maroc doxalee noonu kilifa yi ñooy waxee noonu nee neen donte sax économie bi soxlawaat nañu ubbeeku waaye gis nañ ni jàngoro ji ba léegi mën naa faagaagal Xadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias lu toll ci ñaari junni civil euh, ñaari téeméeri civil lu mu néew néew nee nañu faat nañu leen ci diggante février jàpp avril fële ca Sahel loolee mi ngi tukkee ci rapport bu bàyyee ko ci Amnesty International rapport bi dafa liggéey ci ñetti réew di Mali Niger ak it Burkina Faso foofu la ñu gisee lu ne mel ñi nga xamante ni nag eh, ñoo di eh, alkaat yi ñoom lañ ci joxoñ baaraamu tuuma ñu teewlu ci Ousmane Diallo chercheur la eh, pour l'Afrique de l'Ouest francophone ci bureau régional bu Amnesty International gu nekk fii ci Ndakaaru ñi ngi publier benn rapport buy wane ni que armée de du Mali ak du Burkina ak bu Niger ñi ngi commettre ay exactions ci diggante weeru février ak weeru avril 2020 si bi ñuy dafay opération militaire contre groupe armé yu actif ci pays yooyu noonu donc euh, li ñuy documenté près de deux cent cas d'exactions am na si ñoo xam ne dañ leen fekk fu ñu nekk durant des jours de marché jàpp leen yóbbu leen sans que mu am benn processus judiciaire am ñoo xam ne dañ leen jàpp arrêté après ñu rey leen après les villageois yu dëkk foofu noonu ñoo leen dugal ak ñeneen ñoo xam ni armée bu mu ñëwee di intervenir utilise excessivement la force mu jorey ay nit yu bëri si village yooyu noonu def lu gën a ëpp lu am euh, bés par rapport à ces exactions parce que peut-être qu'il y a une initiative comme un cadre de conformité à dg 5 Sahel pour diminuer l'armée, yi ñu euh, de a pour pour un impact militaire contre les civils mais euh, par exemple si des exactions yi ñu documenté yoo xam des MINUSMA tamit des Nations Unies euh, au Mali ou en depuis le début de l'année. y est dégguñu une à l'international pour condamner ces exactions là maanaam a daal euh, ñi ngi jàppale armée dans le cadre d'opérations anti terroristes et militaires. mais l'Union européenne a pour démolir que civils yi yi Mali Burkina Faso le Niger Ils préservent des violations que ce soit plus jógee ici groupe armé yi wala si force de défense et de sécurité yi lu ñu waroon def defuñu ko ñun loolu lañ jàpp. mu nekkoon euh, Ousmane Diallo di chercheur pour l'Afrique de l'Ouest francophone ci bureau régional Amnesty international gu nekk fii ci ndakaaru Mohamed. cong goog am nay jihadis yu ko def ca Nigeria lu ëpp juróom-benn fukki doomi Aadama faatu nañ ca. waaw euh, village bu lëm la ñu jël euh, faat leen euh, wax nga ko lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomi Aadama. lawa waa Boko Haram faat foofu la ci état bu Borno mu dib attaque bu nga xamante ne nee nañu dañuy fayul ay combattant jihadistes yoo nga xamante ne benn milice ga nekk foofu la daf leen a faatoon fekk ñu doon aar seen mala yi ñu ne daal. ay euh, waa jihadistes yi dañuy ñëw sàcc ko yóbbu kenn xamul nu ñu leen di def. Canada teg nañu benn naal mu di projet boo xamante ne ji projet de loi bopp euh, li ñu bëgg mooy jël ay missiles yu gën a mitti euh, yoo xamante ne ji daal assemblée la ñu ko jëmee ngir mu ngir mu càmbar ko missiles lu mu. waaw loi bi del am na ñu bëri ñu nga xamante ne nee nañu. Euh, dafay nasaxal la àq kilefu doomu aadama yi leneen it li ñu bëgg moo di ñu gën a gaaw euh, dindi fa état d'urgence sanitaire ba foofu la ca Canada ñu ànd ceeg euh, Mamadou ay Ndiaye doomi Quebec, ak Canada taxaw fi ci buntu assemblée nationale bu Quebec, pour fipu wax ne loi 61 bi nga xam ne kii Québec jël na ko pour yëkkati ay projet jëm ci aalam gi jëm ci ndox mu sell mi ak jëm ci gàncax gi mën a yëkkati askan wi saa wu leen neexee ci suuf su leen neex gouvernement logo boobu nag askan wi ñu ngi diingat li nga xam ne def ci projet de loi boobu fii ak fukki fan ak ñaar bu fekkee ne jàll na dina am ñoo xam ni li ñuy bañ dana mujjee furaas dal di xëddeen li ci gën a am solo moo di ñu bëri ñu ngi taxaw di manifester pour wone daal ñàkk ànd gi ñu ànd ci projet boobu nga xam ne kii Québec mu ngi koy jëmmal lëgoo nag da ko diggoon ay militant am ak gouvernement am laata biñ ko falee fii ñuy wax nag ne daal lii tamit jëm ci état d'urgence sanitaire bi mënuñ saa su ne ñu yeesalaat ko xëcc jëmale fu ñu amul. Ils veulent avoir le droit de prolonger l'état d'urgence sanitaire de façon indéfinie, indéterminée. Et puis déjà, le peuple souffre, le peuple canadien souffre de toutes ces restrictions. Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futur Média. Mamadou Aïssa Ndiaye Mohamed ñu jéxalé xibaar bi ñeenti réew dolleeku nañ ci liste réew yi nga xamante ne ñoom ñoo amé moratoire ngir fay seen bor. bokk na ci ñetti réew yu Afrique Éthiopie Tchad akit euh, république du Congo ñeenteeli réew bi Pakistan la mu dib xibaar bu nga xamante ni club de Paris moom moo ko euh, xibaar gannaaw ab ndaje euh, gu ñu doon amal club de Paris nag Mohamed moo dajale réew yi nga xamante ni ñoom ñoo yore lu ëpp ci bor bi pays en voie de développement war a fay gën gaa néew ci lim bi maanaam ci réew yi nga xamante ni am nañu moratoire fukk ak ñaar lanu. ñoo xamante ni daal wàññi nañ leen wala bokk yokk nañ app ba ngir ñu mën fay moratoire mooy maanaam ni ñuy fay dañ koy woyofal. voilà. maa ngi lay gërëm bu baax a baax nga pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu RFM xibaar yu wóor te News Youssouf fii ci Sénégal li gën a ci bilan bi mooy ñaari nit yu seen bakkan ñeenti patient yu bees yu dugg réanimation ci téeméer test yu ñu def lu fukk am nañu ca Cameroun am nañu lu ëpp ñaari junni cas ci diiru semaine 1 premier ak 7 juin ci xayma mooy ni mu néew néew bés bu nekk am nañu lu ëpp ñaari téeméer ak juróom-ñaari fukki cas yu bees suñu sukkandikoo ci ministre de la santé réew ma nee na ñu état d'urgence bi tax na kon ñu atteindre pic bi Cameroun ci bésu tey bi am na lu ëpp juróom-ñetti junni cas ñeenti junni ak lu teg wér nañu ñaar téeméer ak fukki patient ñoo ñàkk seen bakkan ndax coronavirus feebar bi am tamit ay tànk kanam ca Égypte mi nga xamante ni am na lu ëpp junni ak ñaari téeméer nit yu ñàkk seen bàkkan réew ma nag jamono yi am nañu 33000 cas waaye loolu taxul kilifa yi jël dogal ubbiwaat réew ma ngir touristes yi mën fa ñëw moo tax am na ay plage waaye tamit pyramides yi nga xamante ne ñii dañ koy faral di visiter ñu ngi koy waaja a tijji. Union européenne jox na lu jege ñaari fukki million ci euro République démocratique du Congo ngir jàppale ko ci xeex bi muy xeex lii di coronavirus. financement bi dina tax réew ma daal di dugal koppar ci wàllum xibaar wàllum sensibilisation waaye tamit fexe ba ñi ñi ñu mun leen faj ci anam yu gën RDC jamono yi am na lu ëpp ñeenti junni cas téeméer ak fanweer wér nañu juróom-ñeenti fukk ñàkk nañ seen bakkan fanweer doomu cat ak ñeenti amoon coronavirus wér nañu peng te li ñu leen fajee mooy ay antibiotiques yu mélangé ak Covid organisme bi nga xamante ni Madagascar moo koy defar ba tax na ministre de la santé réew ma nee na ñoom defaat nañu beneen commande bu mag waaye loolu taxul ba tey OMS nangoogul ñu fajee ñi amee coronavirus ak Covid organisme. ci OMS boobu la ñuy des ak responsable technique bu cellule chargée de la gestion de la pandémie moom yëkkati na ay kàddu altine wax ni am na ay jàngat yuy def ci ay réew yu wuute yu wane ni ñi nga xamante ni dañoo amee feebar bi te amuñu benn mandarga bëriwul lu ñuy wàlle des kàddu yoo xamante ne bi mu jibee ay scientifique yu bëri nekk ci àdduna bi àddunañ ci wax ni OMS daa xaw a yàkkamti ci wax boobu lee ndax li mu wax tegu ko fenn ba tax na ndaw soosule bokk ci OMS yëkkati woon ay kàddu daal di bind ci compte Twitter am ni di mu wax daanaka niñ ko ñi ñuy déggee moo wuute. jamono jooju ca Washington ca États-Unis

États-Unis sax ci diiru ben fan am lu ëpp juróom-ñetti la coronavirus situation bi ni mel la gis ca Brésil ci diiru ben fan lu ëpp junni ak ñaari téeméer nit ñàkk nañ seen bakkan France léegi lu néew junni nit yu Covid 19 ñoo réanimation bu méngoo loi bi présenté ci conseil des ministres bi ci mercredi bi li ko tax a jóg nag ba état d'urgence sanitaire waaye nag gouvernement bi mën na jëlaat yeneen dogal yi ni mel fii ak ñeenti weer su fekkee ne virus bi jógaat na ci réew mi. ñu dem ca Chine fi nga xamante ni fa la mbas bi dooree mën na am sax ñoom ñoo indi saafara ci virus suñu sukkandikoo suñu naatangoo yu Reuters nee nañu am na ab vaccin boo xamante ni ñu ngi koy euh, développé ci ab chine waa waaye wane na ay résultats yu am solo ci aar ay euh, mala yoo xamante ni ci lañ ko testé ba tax na kon gëstukat yooyu lay nekk Chine nee nañu dinañ tàmbalee ay essai ci ay doomu aadama te lu ci junni candidat la ñu am. savon de Marseille Alfé seen gam Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ni waa kinin gi ak fa mu jaar ba ñu daganal ko ci pajum corona ci réew mi l'observateur xëy na di ñu ko wax ubbil yéenekaay bi gannaaw bi xalaat bi tukkee ci professeur Moussa Seydi ci la ay kàngam di spécialiste yu bare wooteem ndaje ci seen biir ànd ko nag ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé bi ñu waxtaanee waxtaan wu xóot ca yaatu ci ni waa kinin gi càmbar biir ak biti xool li mu mën a indi ne ngëneel ci pajum coronavirus bi ca la ñu koy soog a leneen lu ñuy xaar ñu daganal ko ci pajum corona gi te ba léegi dégguñu ci dara moo di Artemisia gi jóge woon Madagascar yéenekaay bi di l'Observateur xëy di ñu jukkil ci page kaatam lii téye mbir yi ordonnance bu war a bàyyeekoo ci direction de la pharmacie ak médicament moom la ñuy néggandiko libération xëy ak ñun cib lim aku takk buy wane ne kilifa yi amee wàllu wér gënam ci réewum Sénégal ñoo ngi def jéego yu am solo ci pajum corona gi nekk ci ñeenti fan yi ñu génn juróomi téeméeri doomi aadama ak fanweer ñett yu corona woon ci loxoy docteur yi wér nañu ba génn l'hôpital docteur Ousmane Gueye moom xëy génn fanaan ci Vox Populi mi ngi bokk moom docteur Gueye ci comité national gestion des épidémies mooy chargé de communication ba nee na li ñuy seetaan ci réew mi mu di bàyyi nit ñi ñuy dem ca plage di fa dajaloo loolee mooy tëggal coronavirus bi mboye ngaan ubbil ko ay yoon yu mu mën jaar ba law ci réew mi docteur Ousmane Guèye bu ñu ci jëluti matuwaay dakkal ko ba fu mu mën di yam du jur jàmm docteur beneen ci beneen yéenekaay mu di docteur Babacar ñan njiital suma assistance ci journal La Tribune kàcc yi am ci anam yi ñuy xeexe covid 19 bi ak it ñi bëgg jaar jaare ci coronavirus bi ngir defar seeni affaire ci loolee lay waxtaan ak waa Tribune xamal leen ne dañuy trafiqué chiffres yi ngir bañ ñuy dégg téeméeri cas coronavirus ci réew mi ci benn bés mu ne it fii ak fukki fan juróom ci la mën a xamee lu leer ci woyefal gi ñu def ci état d'urgence bi couvre-feu bi la jur ci xeex gi ñuy xeex coronavirus bi bi nee nañu ma ngay def lu dara ca Touba ndax ci juróom fukki doomi aadama ak ñett yi faatu ci réew mi ndax coronavirus bi fukk ya Touba dëkk dëkk bii di Ndakaaru ak li fi am mu di suuf si ñuy saax-saaxee rawatina fi fare ci peggu géej gi Sud Quotidien enquête dina kay moom la de la république Macky Sall sant na Mame Boye Diao directeur des domaines ñu dakkal lépp lu ñu fay def moo xam ay travaux wala spéculation Macky bloqué na lépp loolee ci jéeri ji mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk ne njiit réew mi Macky tëjal na bateau étranger yi waaxi réew mi ne am na lu mat sa fukki bateau ak lu teg yu bàyyee bitim réew doon sàkku ay licence de pêche ci kilifa yu Sénégal ngir mën a napp ci waaxi réew mi dañu leen koo bañal Mamadou Faye ma boobee ba muy dem ay millions yu bari lañu ko nàkkal jox ko bu nuppi jël poste directeur général Petrosen Holding SA tegal ko ci te booba fekk na mu retraité ca Petrosen ñu bàyyi ko fa yeneen ñetti at yoo xam ne weer wu ci nekk dana jot salaire am ak yamuy àndal yëpp ñun ñëpp ci xët mu njëkk l'observateur ñu ànd xooli Luc Nicolaï ma ca kaso bu kees moom promoteur de lutte bi l'observateur mi nga ñuy xamal ne tàmbali na gerew defee ca kaso ba li ko ñu lukk ba mu fippu moo di lu tax ñu génnee Seydina Fall Bougazeli ca kaso ba moom boobee ba léegi mi ngi sàkku ab liberté provisoire ñu bañal ko ko milliard état bu Sénégal baaxee école privée yi ci réew mi ngir jàppale leen ko ci jamonoy coronavirus bi Vox Populi nee nañu école privée yi delloowaat nañu milliard ba Macky Sall mi leen ko joxoon ndax li ñuy bañ mooy lekk ñu ba nuppi seen gémmiñ di niin ne benn milliard bi ñu leen jox boo ko calculé li ngay am mooy 2835 école privée yi am ci réew mi école bu ca nekk 350 000 ngay am boo ko séddalee ci ñeenti weer yi ñu tëj ndax coronavirus bi li ngay am mooy ñaar fukki junni yu manqué ñaari junni maanaam 90 000 weer wu nekk ngir école privée bu ci nekk savon de Marseille Alphé seen gamme opalya seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar gis-gis. benn waxtu du une jot na sënkam ci euh, dem ba fegg fanweeri minute ak juróom-benn yegg si ak yéen ci ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi mu di gis-gis tey jii li ñu ciy waxtaane mooy coowal suuf li ñuy nimmi ko ci réew mi euh, muy jur ay wax ak euh, lu nekk léeg-léeg sax xam na ci diiwaan yoo xamante ne ji daanaka dafay jur fitna loole lu ci am nii saafara. Eh, mu ñu waxtaanee ko ak yéen ci gis-gis ñoo ngi ci jokko ak Mamadou Mignane Diouf di coordonnateur forum social sénégalais bokkit ci collectif touche pas aux terres du phare des Mamelles sëñ bi Diouf maa ngi lay nuyu. jërëjëf nuyu naa la bu baax. heureusement bañ la njëkkee am lu xew Mamelles noonu ba waa Descos xëy fa wàcc mu jur coow bala ñuy soli ci waxtaan wi nga tënkal ñu ko tuuti rek ngir yee ñi nga xam ne xamuñu ko. jërëjëf euh, defe naa ne li xew Mamelles doon na loo xamante ni mooy toqantel bi ñëw daj di toj li nga xamante ni mooy euh, euh, lëkkat yi ndax comme ni nga ko waxee coowal suuf yàgg na xëy na ci àdduna yàgg na ci Afrique tàmbali na gën naa dar nag ci année deux mille yi mais il y a une semaine dix jours dafa am benn waaye bu ñëw ci mamel bi de wàcce fa ay caterpillar mhm. wàcce fa ay camion wàcce fa ay ouvrier di commencé gas jëmale ko ci li nga xamante ni mooy kaw yeneen sori ci ci ci faaru mameel bi ñun mhm. biñ ko gisee ñu xam ne nag loolu dëgg-dëgg yenewul jaarul yoon yenewul maanaa ndax faar bi ci boppam ñu ngi ko construire ci mille six cent mille huit cent soixante quatre mu mhm. doon loo xamante ni daan dimbali ñuy jaar ci géej gi muy bateau yi di jaar ci jaww ji muy avion yi mais itam doon loo xamante ni nee nañu ñu borom xam-xam yi nee nañu mu ngi ñu ngi ko samp ci benn volcan volcan doon toj goo xamante ni

dégg naa ci diggante waa ji jaar na foofu ba yóbbu capital yi léegi nag tey ci suba itam waa des dañ fa dellu pour lépp lu nga xamante ni mu nga fa woon doon ab mbaar wala benn mur wala benn chantier bu ñuy waaj ñu dal di ko dindi daal pour que faag euh, bi ci boppam jëlaat li nga xamante ne mooy jëmmam ak mooy liggéeyam mooy euh, liñ ci doon xaar ci moom ba taxoon ñu tabaxoon ko. loolu leer na léegi euh, jërëjëf ci leeral yi xam nañu la fa xew ndax dañuy dégg boobu ba léegi rek mais euh, da ciy baax nga leeral ko mais danaa ñëwaat ci yow en attendant ma ma ma nuy ji Fanta Kader Ngom expert ci wàllu foncier la euh, sëñ bi Ngom maa ngi lay nuyu. ñu leen di fay. laaj bi moo di coowal suuf bu ñu koy dégg Sénégal bëri na gis nga bi ci Mignane juf jukki sànq am na yeneen yu ko jiitu euh, dégg nañu député Omar Simugeni mu génnee xalaat bu ci mel ne taxawal agence boo xam ne dañu koy dénk suuf sant ko mu saytu ko ci anam wi war mais tey su ma la laajoon en tant expert euh, foncier bi nga doon lan la ñu mën a def ba tàggale Sénégal ak coowal suuf. Euh, maa ngi leen di fay bu baax. coowal suuf moom neexul wax mais coowal suuf di jug ci àdduna ba àdduna di tukki alors parce que suuf dafa doon loo ne. Euh, kenn mënatu ci defar bu bees te li fi nek nga xamné mom la ñëpp war a jëriñoo moom la ñu gérer d'une manière rationnelle gis nga rationalité bobu dama ci insister parce que problème bi ñuy dundu ni yëpp fofu la jógee alors so jëlé suñu suñu code domaine public domaine de l'État code bi néna domaine public maritime moy côté bi nga xamné mo moo ci géej gi nga xamné ne ñëpp ko wara jëriñu jëriñoo ñëpp la wara amal njëriñ ken mënu ko jaay etc., etc. ba paré nak même code bobu mo né waaye nak mun nañu ko déclasser maanaam mun nga ko jëlee ci domaine public nga xam ne li ñëpp bokk la nga dugal ko ci moomeelu état te soo ko xasee ba dugal ci moomeelu état état mun na si def lu ko neex mun na ko jaay mun na ko able mun na ko maye mun na ko dénkaane mais loolu état nag di génnee ci domaine public di jaay di maye wala di di leble di louer maanaam foofu état da cay ëppal li tubaab di wax abus ci opération wu déclassement état da ci abusé alors maintenant ce qu'il faut regretter nag mooy tey jii gis nga ñaari yoon a ngi ni président de la république wax na ci domaine public maritime lii ñu fay def nañ ko arrêté su ma xoolee li am ci domaine public maritime lu mel noonu moo am ci zone des ñaay bi zone des ñaay lu toll fukki conseil des ministres wax na ne suufu domaine suufu zone des ñaay bi bàyyil leen ko mbéy mi mais tey jii boo fa demee sa yaram dafay daw tool yépp dagg nañ ko tool yépp tabax nañ ko tool yépp joxe nañ ko ay lotissement alors c'est comme j'ai comme l'impression que daal le euh, général moo jiitu di wax muy monsieur le président de la république mais troupes yi nga xam ne ñoo war a appliquer toppuñu li général bi di wax de telle sorte que li ñuy wax dañuy wax jaar fële mais jëf bi saafaanoo ak li ñuy wax donc vraiment ça c'est une responsabilité personnelle pour tous les acteurs yi nga xam ne ñoom dañuy dugal seen loxo ci mbirum suuf pour gérer suuf ci biir Sénégal Mignane euh, xalaat bi jib moo di euh, taxawal structure bu simple ñu ngi ko jëlee ci député ba woon Oumar Sy am na ñeen ñu xalaatee noonu maanaam structure boo xamante ne ji moom mbiri suuf yi rek lay lay lijjanti jàpp nga ne loolee tey bu taxawee euh, dana dana am ak tan waaw defe naa li sama mbokk moom wax sànq jëmale ko ci suuf si di gis comme suuf moo ngànk àdduna xëy na am lu koy saytu baax na mais lépp lu ci mën a doon ci li ñu koy saytoo nañ ci nit ñi d'abord benn ragal yàlla ndax suuf gis na gisaay goo xamante ni boo ci dee def li nga xamante ne waroo ko ci def foo jaar nga yéenu suuf ci bu bu subaa da nga sentir ne da nga xam ne suuf gis na beneen bi itam mooy que ni lépp luñ ci mën itam def muy agence muy disposition particulière tant que état imposé wul bonne gouvernance foncière tàmbale ko ci moom ñi ko wër ak ñi koy liggéeyal

askan bi jege bi nga xam ne woon moo déclassifié ndax yëg na ndax ànd na ndax joxe na avis assemblée nationale est ce que yëg na est ce que joxe na avis experts yi nga xamante ne ñooy experts en agronomie en géologie en foncière comme si ma mbokk ba mbokkal émission bi est ce que joxe nañ seen avis avis yooyu yëpp xëy na bu ñu ko den bu ñu ko doon boole te bañ a gaawantu mën na am coow lii dina wàññeeku mais gaawantu bi gis nañ ne dañ koy faral di def parce que ñi koy def dañu am moyen

Fanta Kader Ngam. sëñ sëñ xam nga xam nga. Ah, ah non waaw non non dama dama dama bëgg ñu waxtaan feneen foo xamante ni gis nañ ne coowal suuf dafa yam moo di littoral bi. Eh, mm-hmm. gis nañ environnementaliste yi du ñu jug ci di ko xeex lu nekk ña nga cay am mais terewul ba léegi ñu ngi wéy di ko baraade buñ ko deful dëkkwaay def ko barab yu ñuy wutey comme gaa ñi singili la eh, littoral bi li mën a am ci conséquence eh, jàpp nga ne foo feet mesure ca war am dëgg-dëgg ngir ñu sori géej gi am na ca xam nga bu ñu xoolee suñu suñu code yi organisé mbirum code de l'environnement mbirum code du domaine de l'État gis nga boo ko liiree sa xel dafay xaw a dal. Mhm. mais gis nga doxalin ba mooy sooxe. parce que xam nga code bi soo jëlee domaine public maritime code bi daf ko protéger déclassement bi ñuy wax nii sax exception la war a doon exception mais malheureusement li ñuy gis fu mu nekk nii mooy déclassement boobu moom mooy le principe et bu ñu continuer ci loolu maanaam domaine public maritime dootul amati xam nga léegi lan mooy am le domaine privé maritime maanaam léegi pour nga gis géej gi ku amul xaalis ku amul kàttan ku amul doole mënutoo ko teg bët mënuloo jot ci peex muy jóge si géej gi mënutuloo fa yegg parce que lépp la ñuy tabax yow ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa tabax ñoom ñoo am accès ci domaine public bi su boobaa dootul tuddi ci domaine public mais domaine privé lay tudd moo tax li gën fu mu nekk nii mooy dafa am ay principe yi nga xam ne dañ koy bind ñun ci suñuy document ngala nañ koy appliquer gis nga boo jëlee PSE dafay wax principe de bonne gouvernance dañ ko en règle de gestion principe de bonne gouvernance nak dafa dépasser mbirum loi loi baxna mais à part loi nous couplons coupler les dispositions légales au principe de bonne gouvernance principe de bonne gouvernance bobu moñu wara amener ba nga xamné déclassement dafa exception que domaine public ñu bayiko pour askan pour ñëpp di si mën a ñëpp di Mais c'est ce mais lolu dina ci pratique ci yenn ñi nga xam ne ay acteurs yi nga xam ne dañuy dund ci suuf parce que loolu dafa am am na ñi nga xam ne ci parce que suuf dafa doon une source d'enrichissement surtout littoral bi ngay wax nii mais tu imagines tey état immatriculé domaine public bi def ko ci domaine am maanaam mu moom ko mun na la ko jaayee yow cent mille après yow nga jaayee ji ko un million cinq le mètre carré ça veut dire que en un laps de temps état mun na la enrichir bu leen fàtte am na benn président de la république bu fu mësa ne j'ai fabriqué des milliardaires. C'est l'essentiel des milliardaires qu'il avait fabriqué, c'est à travers le foncier. Mhm. Sauf si mën mën ne la mën nañ la def suba nga doon borom halal. une responsabilité personnelle Nous, vraiment être à cheval sur les principes de bonne gouvernance foncière comme ça nous disons le bopp ci doxalinu le ci du Sénégal. Je sénégal lay gërëm bu la santé euh, l'expert ci walu foncier mu di ñi seen xam-xam kangam yi seen xam-xam màcc jëm ci mbiru suuf ak ni ñu koy doxalee gërëm it Mamadou Mignane Diouf mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beeg Futur media mu newoon gis-gis newoon xibaaru dégg bëccëg gi newoon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi Abdoulaye Diop la woon ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogou Diène jaa jëf ci kanam tuuti danañ leen ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle